y a des Sénégalais ils sont pas d'accord avec l'inculpation et l'incarcération de de de Ousmane Sonko. Mm. peut-être que d'accord ñu ak ni Macky Sall yore réew mi mais quelque Sénégalais des sa de deux cent ou trois cent Sénégalais amuñu droit humilier dix-sept millions. de de de, de Sénégalais. ils n'ont pas ce droit da nga def sa con sa sa sa commentaire nga utiliser ce concept dama la koy bàyyee am nga ci droit. nga ne dañu humilier le le président. non waxuma le waxuma le président ñoom leur objectif était d'humilier Macky Sall. en oubliant que Macky Sall porte les emblèmes Macky Sall porte au nu mu parle au nom de 17 millions de de de personnes et intelligence situationnelle boobu dafa manqué lu bari. ci suñu espace politique xam nga xam nga Maïmouna il faut comprendre une chose un président de la République dans un état démocratique bu xam lan mooy république danga koy nekk mbaa nga bañ koo nekk. bu fekkee nekkoo ko wala nga ma nekk ko à moitié wala nga nekkal ko une partie de la population bàyyi ñeneen et c'est le sentiment que tey beaucoup de sénégalais ont xaw ma ndax c'est c'est cas yow may mun a waaye man ak ñeneen ñu mel ni man et de plus en plus de sénégalais ont le sentiment que ce pays a été foncièrement divisé pas seulement politiquement même sociologiquement beaucoup de domaines yoo xam ne dépassé woon nañ ko par la posture d'un président de la république qui waroon bu waroon tëddee njaaxaanaay defu ko il est devenu clivant partisan clientéliste à la limite ba tax sénégalais yi xaajaloo mais sénégalais yooyu gisul seen bopp ci réew mi il se sentent comme une une minorité comme de sénégalais à part discriminés persécutés violentés du ñu bàyyi seen part de Sénégal parce que kii di Macky moomul réew mi maintenant est-ce que bu ñu songee Macky Sall wax ce qu'il est en réalité parce que démocratie may mun na il faut dissocier le pays et ses règles et principes ak ses emblèmes et autres d'un homme qui le président élu et war a tënku ci droit ak loi bu ko deful justement vous n'avez pas dissocié bu ko deful moo tax ma justement n'avez pas dissocié kenn waxul Sénégal dégg nga gis nga may mun a Sénégal ñu ka ñu fa tudd dañoo présenter le Sénégal comme une dictature mais et le Sénégal n'est pas une dictature le Sénégal sous Macky la ñu présenter sous sous ses traits caractéristique américain bi leen di déglu xamul la Sénégal su mag dañ ko ne ah si Sénégal ah, dictature la Maïmouna kenn waxul le Sénégal et dans les manifestations aucun manifestant n'a dit si. le Sénégal le Sénégal a été ou le Sénégal sous Diouf sous Abdoulaye Wade ou sous Senghor a été ceci Sénégal rek lañu wax dañu ni le Sénégal bu Macky Sall da ngay dégg ñu naan he is a killer Macky Sall est un assassin ñoom ñoo koy wax mais bi ñu koy wax waxuñu ko tudduñu ko beneen président moom lañ ko wax ils ont su distinguer ce pays qui s'appelle le Sénégal. mais dañ ne yàlla dictature au Sénégal mais c'est leur jugement c'est leur appréciation. Euh, euh, moo tax ma ne la dañoo war a dissocier. non non on ne peut pas dissocier ñu ci ci ci Macky Sall nu mu yoree. Mm. réew mi mm. am na lu mu def lu leen metti mm-hmm. wala am na yu mu def lu leen metti mais mënuñu confondre le Sénégal à Macky Sall. Le Sénégal n'est pas une dictature. Le Sénégal reste néanmoins une démocratie malgré les dérives liberticides. Et loolu moo tax ñu toog fii di ko wax loolu moo tax des Sénégalais am droit wax ko fële te heure bu ñu bëggee dugg ci réew mi ñu dugg ci réew mi. Le Sénégal boo nee le Sénégal est après chacun caractérise en fonction de la façon dont il sent le Sénégal ak ni mu ko gisee en tant que citoyen. saa yow ne le Sénégal est rek yow da nga naan le Sénégal est une démocratie le Sénégal est un état de droit le Sénégal est parce que sa appréciation la loolu nga dund loolu nga gis. non de manière générale voir parce que démocratie boo ko waxee ba pare il faut que nga définir lan mooy démocratie elle n'est pas parfaite paramètres yi nga koy définir dafa bari am na ñoo xam ne fondamentaux wu démocratie ils se disent et c'est mon cas yenn yi bu fa nekkul. démocratie bi slogan kese la. yow la mooy say fondement dañu naan démocratie bi ko vide la. mais yow yow la mooy say fondement parce que démocratie. pour qualifier un pays démocratique. benn mooy le le la l'inclusion citoyenne dans le processus décisionnel du pays que sénégale yépp xam ni lii ci réew mi dañ ko moom bokk ko dañu ciy jot am ci seen wàllu duñu leen discriminer ce n'est plus le cas. y a une frange importante de Sénégalais qui se disent gisatuñ seen bopp ci réew mi muy benn ñaar le droit de tànn bu jotee parce que dañu la naan peuple la dans un territoire bu dee dañuy wax démocratique la bu ñuy tànn ñoom ñooy tànn seen ay dirigeants mais pour nga mën a tànn dirigeant il faut nga am un processus politique et électoral boo xam ne nit ñi am nañ ci confiance je n'ai plus le sentiment man que le processus électoral au Sénégal et ni ñu ko surtout depuis 2012 bi ñuy ñëwee au pouvoir ak ni ñu ci jëmee nekk na lu équitable lu juste et lu transparent pour tout le monde ce n'est plus le cas c'est mon point de vue et c'est le point de vue de beaucoup de Sénégalais troisièmement ñu ne la dans une démocratie le peuple peut décider mën a Ndour Faye mooy nekk suñu président de la République ou Cheikh Tidiane Dièye ou Ousmane Sonko mais kenn warul utiliser les règles de droit pervertir leen pour empêcher peuple bi ñu tànn Maïmouna Ndour Faye bu dee moo leen neex gis nga Donald euh, Trump aux États-Unis am na lu ñu koy toppee ci wàllu yoon yoon a ngi def liggéeyam mais bu ñu yeggee ba ci élection te yoon daanu ko lu tax mu bañ a nekk candidat on le laissera être candidat bu ñu ko falee mu nekk une réponse politique du peuple américain à un cas judiciaire mais amatul fii ci biir réew mi amatul Sénégal Sénégal mun Maïmouna Ndour Faye c'est devenu le Sénégal des uns et pas le Sénégal des autres c'est not sentiment moi j'ai le sentiment que la République du Sénégal est devenue une république presque privatisée am na ku bokk ci ñoom ku fi bindoon livre ni la République abîmée doon tudd beneen république mais tey loolu mu bind mën naa changer rek turu ka mu doon wax président boobu def ci turu président bi fi nekk pour wax la République est toujours abîmée mais, et elle l'est